pour sénégalais yi seen xol sedd ngeen xam ne banditisme Macky bi léegi wër na àdduna cour pénal cour pénal international prononcé wu nañu ci affaire u Sénégal jërëjëf Juan Branco merci à Juan Branco l'avocat Juan Branco a pu introduire l'affaire du Sénégal au cour pénal international il s'est saisi voilà léegi ma déglu loo leen li nga xam ne moom la waa cour pénal wax voilà ces pays ah ngeen déglu. aussi, euh, c'est la, la, question de ce qui se passe euh, au Sénégal. Alors, moi personnellement, je n'ai pas d'informations, je vois dans... Elle, m'a été posée là, mais également elle m'a été posée. Question, je vois dans... m'a été posée là, euh, mais également elle m'a déjà été posée. euh, c'est la, la, question de ce qui se passe euh, au Sénégal. Alors, moi personnellement, je n'ai pas d'informations spécifiques concernant le Sénégal, mais si vous avez des informations sur des euh, crimes euh, éventuels ou qui auraient été commis soit au Sénégal ou ailleurs dans le monde, il va falloir communiquer ces informations au bureau du procureur. pour euh, le communiquer, il y a euh, un, un mail, il y a sur le site Internet la possibilité de contacter un enquêteur et de leur soumettre les informations dont vous disposez. Et ce bal boo am déglu ma bal bal fetal bu feeñ bal bu ñu tiire ngeen for ko wala ngeen am ay vidéo ñuy assassiner nit wala ay force de l'ordre di tiire ci ay nit yooyu yëpp nañ ko dajale photo boroom jël information yi di ko yónnee boo leen ma ko yónnee man sax man dinaa fexe waan jot boo leen ko yónnee aussi le les personnes dina ñu fexe mu jot mais lépp lu nit ki yónnee na doon ak preuve parce que fi mu ne cour pénale internationale saisiru na ci affaire Sénégal ñu ngi xool li kaw ci dëkk bi te bu boobaa incha allahu rabbi gëm naa ne du yàgg dara dinañu yóbbu Macky Sall ala hey te dinañu yóbbu Antoine Diome à la Haye parce que crime yi di xew Sénégal contre l'humanité yóbbu nañ ci nit xëy ci li nga xam ne moo gën a tuuti loolu donc nañu bàyyi loolu xel am nañu beneen outil boo xam ne mën nañ ko utiliser à notre faveur donc bàyyi leen loolu xel voilà lépp loo leen man rek incha allahu rabbi kii doon wax ni c'est un procureur au niveau de la cour pénale donc lépp luñ fa ne ci biiroom dañ koy jël très sérieusement te dañuy ubbi enquête te bu ñu ubbee enquête ils auront des personnes sur le terrain qui vont faire le travail qu'il faut incha allahu rabbi gars yi maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen jéggalu xam naa waxtaan bi nag euh, mënoon naa gën a gudd lii waaye dama leen bëgg a wax ne démb y un policier qui a été tué en Casamance ñaata temps la ñu xeex Dakar Dakar ñaata temps lañ fa xeex est-ce que dégg ngeen policier bu ñàkk bakkanam wala gendarme déedéet Ziguinchor ñàkk nañu benn policier joolaa gendarme bi xamaguma identité bëgg naa ko xam nag mais li xew mooy le le le le bandi Moussa Fall mi ngi jël ay bakkanu force de l'ordre ci li ñu dégg dégg nañ sax am nañu mu jàpp mais c'est à vérifier dégg nañu képp ku bañ ordre bandee mi la yónni ñu rey la ñu ne voilà da ngaa dee par accident c'est Moussa Fall qui est en train les forces de l'ordre qui ne suit pas ses ses ses ordres mais kenn ci yéen force de l'ordre yi mënu leen jot dóor musa Fall bal ci bopp tu vas faire huit mois de prison huit mois huit mois de prison ngay def kenn ci yéen force de l'ordre yi koy garde jege ko mais doon leen ko balu bopp mois ngay def prison président bi bu ñëwee président bu bees bi bu ñëwee mu jox la njëggal nga ñibbi sa kër parce que xam nañu ne rey nga délinquant mais kenn ci yéen force de l'ordre yi war Moussa Fall doon leen ko balu bopp mais Moussa Fall wala Antoine Diome yéen ñi leen jege mais il faut les donner une balle à bu président bi ñëwee daf leen di gracier président bu bees bu mën a ñëw daf leen di gracier ngeen génn mais door leen leen balu bopp Moussa Fall wala Antoine Diome il faut les donner des des des des balles à la tête mais lu tax ngeen war a nangu ay ordre yu illégal commandant bu la jox force bu illégal quand tu te sens menacé dox ko balu bopp tu vas faire huit mois de prison les patriotes vont nourrir ta famille et tu seras gracié dans huit mois il faut force de l'ordre yi ngeen xam lool il faut commencer à donner des balles à tête aux délinquants commandants il faut les donner des balles à la tête commandant yi ngi leen di jox ay ordre yu illégaux tël tël nga pare ci gars yi maa ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla incha allahu rabbi euh, li nga xam ne moom moo ñu dese ci combat bi yàlla may ñu ci ndam un délinquant militaire nommé dénommé dénommé Mbaye Cissé Mbaye Cissé sa tur mi ngi ci réseaux sociaux yi comme tulleeg male yaa ngi dégg Mbaye Cissé le délinquant ton nom est là ton nom est là dégg nga sa tur mi ngi mel ni mal màlle ci réseaux sociaux yi waa ki doon seet mati xam nga sànq wax naa leen nee naa leen dafa tol ni mbóot mi ngi nii xool leen ko xoolal ni mu toll xoola bu rombee nit gis nga kii mooy mati une pomme et demi xoolaat leen vidéo bi bu baax xool leen buy romb nit dafa mel ni moom genn wàllu nit la matul nit xool leen xool leen ko xoolal xoola mi ngi nii xoolal xool leen gis nga buy romb nit ki gis nga ni mu toll kuskondorong la genn wàllu nit la maanaam mi ngi mel ni mbóot boo solal costume kii mooy mati une pomme demi voilà donc làmmiñ bi ngeen di dégg làmmiñ bi li ko metti mooy liñ ko wax mati amul sein ween mënul nampal ab doom mati mënta ëmb parce que amul développement bu mat ci nit maanaam euh, kii la quoi ah matul sax kuskondron ah parce que tungu ne mën naa am doom moom du tungu ne moom li mu doon moo gën a grave tungu parce que dafa am pathologie donc loolu moo tax ngeen gis cokorte gi nekk ci moom nekk ci moom ak làmmiñ bi ak coxorte gi ak bon moo tax mu nekk ci moom voilà boo leen leen xoolee ñoom ñëpp daanaka dañoo déformé kenn ki chic ki nekk fii gis naa ko démb nag yónnee nañ fi ay vidéo am de mu defaraat euh, kii bi toogukaay bi mu jënd kilot yooyu ñuy sol pour nga am wàng parce que comme dama koy ne shrik léegi kilot yooyu di may arrière lay sol temps yi comme ça buy dox di daagu di wane ginnaaw ak ñoomin seen di takk ay greffage ak lu ne waaye ñun jigéenu patriote yi soxlawuñu loolu jërëjëf gars yi maa ngi leen di sant di leen gërëm incha allahu rabbi ba beneen yoon na xeex bi jolli na tàng waa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.